abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk xibaar yu wér te ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo kon di leen di sant di leen gërëm leen ñaanal yàlla defal leen dimbal kenn ku ci nekk ci yéen di beral nuyoo nag imaam yi fi nekk seen taxawaay ci dëgg bi di beral nuyoo imaam yi fi nekk ci ñi nga xamante ne moom la ñu àndal muy euh, saltige yi. jaraaf ndomba tànk yi. mu ñëwaat ci ne coutume bi suñuy maam ak moom. man mën naa falu jaraaf mais bëgg naa ëllëg bu ko sama doom wala sama jarbaat di jël la nga xamante ne mooy ndëgërlaay la ñu bañ ko salfaañi ndax ñu mën ko joxante génération par génération ëllëg ñu ne ah jaraaf maa libéer Samba nii la doxale woon nañu roy ca taxawaayam ndax joxe woon na bakkanam pour Cap Vert ñëpp mën ci ànd xale yi mën ci jariñu c'est extrêmement important ndax lu baax boo amee ñëpp di ko roy nañ ko sàmm ndax kenn mënu ko séddoo ndax cërëb saltige bu mu yor dama ko dénk su ma neexoon jëlaat ko ndax il n'a pas l'exclusivité donc nañu ko rafetal ñu nag nangu ñu ndaw ñi ànd ak ceeg yéen ñun ñu yëg suñu cër yéen di jox leen seen bos ba mu mat sëkk loolu mooy yombal dëkkuwaay bi mooy yombal mbir mi ba xalaat yi ñu am pour suxali Yoff buñ ci tënkoo ñun ñëpp ñu mën a jëm ca kanam di beral yooyu it adjoint maire yi ndax ay xale lañu ndax boo gisee ku mel ni doyen Sidi Bara yoroon planification fii ci Ndakaaru bu bàyyi léppam ànd ak ay xale muñal nañu lu bari baal nañu lu bari jéggal nañu lu bari sama yaay jit kenn waxaale ko jéggal nañu lu bari muñal nañu lu bari ndax ñoom dañuy toog di gis man lu ma gisul ñu ne ma meer nii la man sama deret bu tàng laay gis ak bëgg bilan kut ka kut bilan nag la ma leen wax sànq rek yàllaa ko yor waaye ñu ngi jël seede yàlla ne la ñu war ci jubal ak liggéey ñu ngi koy def ndax li maire bi daan jot ci taxe muy jóge ci askan bi ñetti million par weer la woon ñu ci fukki million bëgg nañu jaraaf mu yegg ñaar fukki million ndax ñu gën a mën a taxaw suñu dëkk mm-hmm. maire bi mu ngi daan am ñaar téeméer ba ñetti téeméeri million ci investissement ak bu jot ren ji ñu ngi ci juróom ñeenti téeméeri million bëgg nañu déwén ñu passé milliard mm-hmm. insha allahu rabbi ñu ngi liggéey ci éducation maanaam xam ndax dafa am fu réew mi jëm am nuñ ci war a demee ànd ci nag ak i teggin ànd ci ak i yar te loolu li koy may sax ndaw mooy bu xëyee jàng ji école ba gënal ko këram bërëb yi jàngale di ñuy fay man maire Yoff dama leen di concurrencé di ma mere mais dama bëgg chance bi suma wéjur am ku mel ni Ousmane Tanor jee am ko ku mel ni xalifa sàll am ko ku mel ni Ousmane sonk am ko ku mel ni président Macky Sall am ko nañ ko may doomu yoof bu ne maanaam nga juddoo fu baax moo waral matériel bi ñuy maye nga jànge fu baax moo waral taala jaañ bi ñuy yeesal ak yeneen école yi ëllëg fu ñu yëkkati ci réew mi ñu ne kuy jiiti yow doomu yoof yi nga mën a yëkkati sa loxo doomu yoof bi nag du diggante laay nag tóngóor waaye jili mbay ca la bokk Nord Foire sa la bokk Ouest Foire sa la bokk naka jaraaf waxe lu yoof amul lu yoof am te soxlaaw ko nañ fexe ba waa Travo am ko nañ fexe ba waa Ouest Foire am ko ba ñeneen i cité tey dollu ko ci. Mm-hmm. saltige yéen a ko ñaanoon seen maama ko ñaanoon ne yaatal leen saxeti gan yaa ngay ñëw donc loolu ñaan gu nangu nag bu sa maam ñaanoon boo ko nangoo rek yàlla defal la ci ndimbal te nag yéen a ngi koy nangu bu baax ndax dëkkin bi rafet na mm-hmm. sell na te jub na liñ fi joxe tey nag lépp wax naa ko ci nasaraan waaye li ci ëpp solo mooy. loo xam ne centre de santé yëpp dinañ ko am maanaam boo amee crise asthme nga fat boo demee ci centre de santé poste de santé ba la gën a jege ñu man la faj ci lu mu gën a gaaw boo demee am euh, juddu bees mu naan la nga xamante ne mooy ndox mi nekkoon ci biiru yaayam am na machine bu koy pomper ci moom génne ko ndax loolu da koy sonal te mën na ko lor loolu day xeex faatuk ndaw ñi beneen bi mooy loo xam ne matériel bi ñuy utiliser ndax Euh, microbe yi day nekk ci fépp matériel la boo xam ne boo ko ci dugalee dina dindi lépp luy jàngoro bu mën a lor ki ñu war a faj wala ki ñu war a opérer am na it couveuse muy innovation bu rëy ndax yoof ku daan am doom matul juróom-ñeenti weer da ngay génn yoof yóbbu ko ci beneen ni hôpital nga fay lu cher ñu dugal fa sa doom loolu bés ni ki tey jeex na ci yoof am leen benn waaye dinañu dolliwaat Philippe Senghor ndax ngeen mën a jël lu bari dinañ it teg ci seen loxo table réanimation boo xam ne xale bi nga xamante ne mu ngi ci couveuse bi tàngoor bu mu soxla pour màgg ba mucc loolu aussi met nañ ko à votre disposition mairie bi it am na programme tabax post de santé bu Nord Foire bi ñu ngi ci doon waxtaan ak askan wi ndax bëgguñu def loo xam ne day jur coow kuy liggéey pour jàmm doo yee fitna fañ ko bëggoon tabax ndaw ñi bañ nañu ko am na fu ñu askan bi jox dinañ ci ànd ak ñoom tabax ko waaye ñu ngi ci étude ci wàllu assainissement ak ONAS pour man ko saafara gis naa suma suma suma xarit suma papa président délégué de quartier mu ne à quand la rénovation du poste de santé de Tongoor fan yi passé def nañ dem nañ fa def nañ relevé yi xam nañ surface bi am na programme bu ñu bindu boo xam ne dugal nañ ko ci pour yeesal école yi yoofu yépp ak poste de santé yépp donc ñaanal leen ñu requête financement yooyu ñu def incha allahu rabbi yàlla defal ñu si ndimbal tongoor it seen requête financement yi dakaar bi maire Barthélemy Diaz waxoon ma koy remercier au passage ci taxawaayam ci dëkk bi dugal nañu ko service technique ñu ngi koy jàngat waxtaan naa ak ñoom li ma leen proposé moo ñu def un comité de suivi parce que alal lay génne lu toll ci téeméer ak juróom benn fekk fukk ak juróom-ñetti millions foo ko def faaw mu leer donc dama leen ne tóngoor na ñëw toog maire dakaar ñëw toog maire Yoff ñëw toog ñu ànd akook askan wi ak kilifay dëkk bi ñu saytu ko pour lan la inondation jeex ci tóngoor donc loolu maire moo jëloon engagement am na yeneen yu ñuy lijjanti mais ba ginnaaw sotteegul dëgg yàlla mënuguma ci àddu mm-hmm. mais li ñu bëgg mooy poste de santé bu jàmmalaay ñu yeesal ko poste de santé bu tongoor ñu yeesal ko ñu fexe ba zone Ouest Foire Nord Foire am poste de santé zone aéroport am poste de santé Philippe Senghor polariser leen ñoom ñëpp loolu mooy bëgg-bëgg bi. Hmm. Philippe nag ñu ngi dox mais dama bëgg lu wóor loo xam ne bu ma ko tegee seen loxo làmb ji jeex maa ngi ciy dox ñaanal leen ñu yàlla defal ñu si ndimbal mais li ñu mbébét bis bu ñu ko defee ndakaaru uyu si leen c'est ça ma vision c'est ça l'objectif c'est ça la vision de l'équipe. Euh, ICP yi fa laay tëjee di dalal seen xel yéen bëgg leen rek dee leen bëgg rek ñun ñuy def parce que li ñu waxante woon ak yéen suma ma ñu ngi ci ku la jox ndekki ngay xaar añ 11 jot mu indiwaatal ay petit four añ ñëwagul mu ne la naanal jus d'orange nga taaxirlu boo ko laajee añ mu tag mu toggal la mën a tegal la ñun ñoo bëgg santé parce que gu yaram. obligation la ci maire mu taxaw ci obligation la nit ñi dañ lay laaj bilan matériel matériel day yàqu li ñuy jublu mooy defar doomu aadama ci xam-xam ak ci wérgu yaram boo amul doomu aadama boo am xam-xam stade boo defar xale yàqu ko boo amul euh, wérgu yaram ci askan wi boo leen defaralee dem fi mooy oto yooyu ñuy jël fay cent franc dem fu ne te du am benn jeexital ci jaww ji ndax gaz lay dawee doo ci mën a yegg kon nañu fexe askan wi am xam-xam askan wi am wér-gu-yaram c'est les bases maanaam mooy ndëgërlaay pour tabax ab société pour defar ab société donc ñun ci loolu mooy suñu vision waaye nag nit ñu ne ñu teraanga àddina bët chantier yaa ngi ñëw jaraaf si ne am na lu ñu si ak moom pour wane ne réeroo ñu ak suñuy kilifa lañ si ak moom du dara lu dul defar terrain boo xam ne dina yegg milliard fii ci Ndangaañ defoon nañ pose première pierre bi balaa ñuy démarrer chantier beneen bunt bi gën ñun li ñu amoon feeñ jaraaf damay taxaw jël alal jooju dugal ko feneen jël la bees la ñëw tabaxe ko terrain bi te fee fan yu néew di ngeen ci am lu leer mhm. incha allahu rabbi loolu lañu ñu bëgg askan bi bu amee projet na ñëw ci mairie bi ànd ak mairie bi ñu liggéey ko donc loolu il faut ñu góor góorlu ci taxaw ci ndax waxtaanee ñu ak Ndingaañ dara sendul dara génnul ba ni ñu signé convention bi conseil bi jox ñu ci autorisation bi passé te ñëpp xam nañu conseil municipal nu mu méttee mais ñëpp a ànd ci projet bi. donc loolu dégg boobu Yoff am yàlla na sax donc ma ñëwaat ci ICP yi wax leen ma la ngeen bëgg rek ñu waxtaanee waat ko ñañu war a dolli ci seen ak payoor ñu xool lu ñu leen delloo ci seen ak payoor loolu man ànd naa ci. mais na ànd ak les lois et règlements ma wax ko cour des comptes ci mairie bi pour juróom ñaari weer dañ may laaj te li may def it faaw mu méngoog li tax yi wax. dëgg yàlla moo tax loolu mooy wane ne euh, lépp mënuñu ko def saa su ne wala ci joni joni ndax ëllëg bu lii jeexee dinañ ma laaj la nga na nga yore woon noo ko yore te ginnaaw bu la ko cour des comptes laaj yàlla da la koy laaj donc foog nga bàyyi xel yooyu. defar leen seen tableau ngeen waxtaan seeg le médecin chef fi ñu soxla pour accouchement muy ndenaat euh, muy poste santé Yoff ndenaat daagu daal ak abexi ngeen wax ma naka ngeen ko bëggee ñu defe ko noonu maanaam lépp lu ñu soxla parce que jox matériel te amoo ko ko exploité amul njariñ donc yéen bëgg leen rek ma topp leen di wax nag ne feex fan yu néew dinañu organiser ak médecin chef ak équipe am di la remercier bu baax jaata ci sa taxawaay taxawaay boo xam ne dinañu saytu feebar ak laago yiy daw ci dëkk bi ñu xool lu ànd xeex ko. dinañ ko def euh, waaye dañu koy boole ak éducation ñu def une journée invité ndey ji réew yi jaraaf yi invité tout la communauté ak conseil bi ñu dem hôtel ñu toog waxtaane ko ñu xamal leen biñ fi jotee ñëw lii lañu liggéey ci éducation ci santé ñu saytu ko ndax il faut évaluer les politiques publiques. pour askan wi xam ne seen alal fi mu dugg fa la war a dugg di tëje nag ne ñu bari dañuy faatu fan yi la Cheikh ñaa toog fii yàlla na ko yàlla yërëm am arrêt cardiaque lan nga man yëkki yóbbu yàlla mooy jël bakken ci loolu nag dem nañ seeti SAMU SAMU waxtaan ak ñoom dinañu former tout le personnel médical si urgence ak secours incha allahu rabbi dinañu former trois cent yoo fois jaraaf yow sax si ngay bokk ndax yaa ngi ci ndaje yi def nga santé dañ lay dolliwaat formé waat la yow ak kilifa yi fi ne pour foo leen mën a ne ku am lu ko daal rek ngeen mën a def yéen les premiers soins et les premières interventions donc loolu dinañ si former 300 yoo fois pour 2023 2024 ñu yokk ci ba cinq 500 yoo fois li ñu bëgg mooy ku tourné daanu nga am ku la mën a taxawu léegi donc loolu aussi ci santé bi loolu bokk na ci di leen sant nag. di leen ñaanal ay xale lañu mag mooy muñal xale man day am naa ñetti doom yu góor waaye damay muñ si ngay xam lan la sa wéjjur doon daj ci yow ci ngay xamit ne war nga gën a jox cër sa wéjjur lu ci am solo la moo tax ñu ngeen ñaan mag ñi ñu xam ne ay xale fi ne ni ma Sidi Bara di muñale grâce yi di ma ko muñale maa ngi ñaan ngeen muñale ñu ko noonu du yomb nag ndax boo yoree kàddu askan état tënk la lois et yi tënk la am na loo man am na loo mënul am na loo mën a bàyyi am na loo mënul bàyyi waaye li may dalalee seen xel doo leen ñu dégg ci luy yàq doo leen ñu dégg ci kàddu bu ñagas lu nar a yàq nar a ñaaw yàlla na ko yàlla rafetal ndax yoof gi ñu bokk gis-gis la weesu na sama jëm weesu na sama kàttan benn mandat ñaari mandat yàlla mooy fale mooy fale dëgg yàlla donc dañ koy delloowaat suñu borom buñ nee day yem ci benn alhamdulilah am na ñu métier ñu liggéey daan nañ añ réer ndekki balaa ñu nekk maire dañ nekk maire commencé xam butéelu caaf ñaata lay jar ndax mënatoo wër di jënd caaf fukki dërëm da ngay jënd butéel bi denc suturlu ci ndax ñi ne ci maire bi xam nañu li ñuy daj donc coono kese la waaye natt bu la ko yàlla tegee danga koy nangu bu ne day yem ci benn alhamdulilah bu dee day dem ci ñaar ñu àndaat liggéey waaye li tax ma loolu. mooy dañuy leeral nit ñi ne daw ñu ci nguur déedéet duñ jëfit jëf joo xam ne day yàqal nit duñ jëf-jëf joo xam ne dina doyadil suñuy wéjur ak suñuy kilifa yi mel ni yéen pour téye nguur dara ci àdduna jaraluñu ko loolu daal lañ doon dalale seen xel di leen sant di leen gërëm ñu génn def remise symbolique yi ñu ñaan yàlla ñëpp teewe ko ngeen gis ne matériel baa ngi nii dul lii rek li ci table bi lu ci bari muy ci biti ñu àndandoo jox ko poste de santé te dinaa leen seet si fan yi di ñëw laaj askan wi est-ce que yéen a ngi leen di toppatoo seen gémmañ ñoom man sama nopp insha allahu rabbi allahumma salli ala sayyidina abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir yu wér réew mi ak ci